bokk ci parti président Macky Sall ñenn ci ñun bokk ci coalition benn bokk yaakaar ñenn ñoo xam ne sax bokkuñu fenn waaye dañu gëm ni yoon yi président Macky Sall vision bu leer la ñu ànd ak ñoom di liggéey lu jëm ci Covid bi xëy na peut-être da nga nekk en ni ay ndaw APR di leen jàpp parce que dañ demoon di joxe ay masques parce que dañ demoon di accompagner population bi ci ay sensibilisation def naa loo ko wax lañ leen jàppee journée tey bi moo fësal seen occupation terrain bi mais depuis que ba Covid bi amee ba tey ku nekk la presse est témoin gis ngeen ay ndaw yu bëri sur le terrain ñu dem di maye masque di maye eau de javel di maye gel loolu depuis ba Covid bi commencé ba tey yéen a koy gis waaye tey bisu tey bi comme afa am ñu tëkku woon état bi ne ñoom kat danañ génn ñaxtu. mu ci waa opposition bi pour feete M23 xëy na état bi su leen teree sax day bañ population bi ñenn ci population bi génn amee ay cas communautaire ndax ñoom loolu la ñu war a daw dawuñu loolu looloo tax état ne tey képp ku ñu gis ci terrain bi dañ la génnee terrain bi ndax bisu tey bi kenn amu ci autorisation mais su dul loolu toujours yaa ngi gis ay ndaw APR sur le terrain ñuy maye masque di maye gel dem dans les hôpitaux di sensibiliser population bi mais tey bu ñu ko waxee ñoom it lay lancer un appel nañu xam ne yoon nekk lu fi APR yoon ñëpp la fi nekkal lañ doon def chaque jour ba Covid commencé ba tey di accompagner population bi nañ ko bàyyi ba suba ñu dellu si terrain bi def nañ doon def xëy na tey bisu tey bi amaana boo leen bàyyee opposition mu ne xoolal ñu ngi bàyyi ay ndaw APR def seen activité ñun ñu ñuy tere def seen activité ñoom lépp lan la mooy toog jaxasee sos président Macky Sall jaay na dëkk bi jaay na ko naar yi jaay na ko ciment bi loolooy seen débat mais donc li am solo mooy ndaw APR yi nañu topp li préfet bi wax ñu dem toog seeni kër ba suba ñu dellu def nañ doon def dem ci marché yi dem ci hôpitaux yi accompagner population bi xam nga tey koo xam ne da nga demandé da nga daagaan baagu askan wi ñu fal la daa am sa deuxième mandat ñu def suñu anniversaire yàlla indi mbas mi ñun bu ñu fi nekkee sax di wax ci mbirum troisième mandat dañu may opposition bi lu ñu bëgg tey priorité bi mooy Sénégal dafa nekk ci guerre ci benn ennemi tey loolu mooy ordre du jour bi du ñu nangu aussi ñu ñu imposer débat troisième mandat mm-hmm. te loolu fa mu jóge ñoom ñoo ko tal ñoom dañ leen di wax mooy ñoom nañu pari seen candidat boo xam ne opposition koy tànnal ñun ci li ñu nekk ñu ngi ci mooy dañuy jox un second mandat ñu am luñ ci diggee fexe ki amul woon ndox am ndox ki amul woon courant am courant ki nga xam ne aussi da nga bëgg a faju ci anam bu mu gënee nga nga faju ñuy préparer aussi Jeux olympiques ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mbas mi moo ci gàllankoor lu bëri war a yegg suñu ay chantier war a relancer aussi suñu économie ba ñu dellu au mois ci six virgule trente yi nekkoon ñun ci loolu lañ nekk mais dañuy wax wax troisième mandat vraiment. loolu nekkul ordre du jour pour ñun ba ci président de la wax na ko waxati ko le moment venu ñu war a tànni candidat macha allah am nañ partie bu baax am nañ coalition bu baax buñ ci yegsee war a dem local danañ préparer élection local élection locale yoo xam ne xamaguñ kañ la ñu bëgg ñu wax waxu présidentiel boo xam ne ci loolu lañ jugee ci loo xam ne matul sax ñaari at daa moo am lu mu génne ngir jox ko population bi mais ci biir liggéey bi boo amee lu ci feeñ ay politiciens bu boo ko soit nga nekk maire walla nga nekk député wala nga nekk loo xam ne ku mel ni euh, chef de quartier am loo ci def ngir sa mbirum bopp personnellement mais loolu bu amee préfet dafay arrêté liggéey bi yooyu moo waral boo ko diggee ci quinze jours it di nga def ko ci deux mois wax nañ ko sànq am nañ foo xam ne nee nañu am na lu manqué loolu du ci ñàkk mais lu ci solo mooy ci un million de ménages yi ci un million de ménages yi ñu jóge woon matul sax mille ménages yoo xam ne jotaguñu bu dee mille ménage yooyu li ñu bëgg def problème Sénégal yëpp comme si ña waroon jot jotuñu vraiment là ça pose problème li am solo mooy yéene bi nga jël un million de ménages jagle leen dund tey lu ëpp ci loolu jot nañ si ni ñu war a jot vraiment ñun loolu lañ ci tontu.